jërëjëf sëñ Cheikh Tidiane ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa presse bi fi teew di leen ma masawu ndax euh, buñ leen di yéegal waxtaan bi ak léegi defe naa gën saa gudd ñetti waxtu wala ñeenti waxtu la dem euh, di am mbégte di nuyu ici ñiy seetaan ñëpp en direct moo xam ci télévision ci rajo wala ci internet bi. di am mbégte nekk fi tey ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Youm nga xam ne mooy coordonné le PUR di wax ci suñu tur nag ci suñu tur ndax ñoo jël suñu responsabilité pour ñëw jàkkaarlook askan wi waxtaan ak ñoom kenn yebaluñu fi xam ngeen bi mbir mi commencé ba léegi defe naa dégguleen ñu si ndax dañu nekkoon ci yeneen waaye dañu jàpp ni wax ju ne dañ koy wax ci jamonoom ndax Sénégal actualité day am rek ku nekk ku xam ak ku xamul ku nekk daal di créer sa propre vérité bu dee nag da nga dugg ci cacophonie boobu rek boo moytul sa baat kenn du ko dégg day doon une voix boole ko it ni baax na dara su amee nga bàyyi ba lenn daje ci ay mbir ci ay fait ni ko tubaab di waxe bi ñu jàppee ne nag wax jot na loolu tax euh, man tey ma jóge fi ma ne woon yegg ci sànq jokkoo ci ak euh, Chamet moom mi ci boppam mi ngi woon hors Dakar ci benn dëj ñu daje fii pour waxtaan fii nag ñoo ko tànn ndax xam ngeen ni kenn ku ne ci ñun am na siège waaye ñoo ñëw siège taxawu ndax lan ndax symboliquement siège bi ak salle bii ñu ne dafa am loo xam ne fii lañ ko fase woon ci salle bi te foofu lañu ñu bëgg a tàmbale dinañu waxtaan ci ñetti pàcc bu ci njëkk mooy li nga xam ne xew na ci biir yi ba tax ñenn ci kilifa yi génn am lu ñu taxawee am lu ñu wax ñaareel bi mooy li xew ci dépôt yi ci boppam ñetteel bi nag te moo ñu ëppal yitte ñun mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy dëgmal ndax makisal Sall faaw ñu jàmmarloog moom loolu mënul ñàkk loolu moo ñu gën a yitteel fi mu toll nii donc pàcc bu njëkk bi dama bëgg a fàttali nit ñi nii fàttali ko sama bopp fàttali ko képp koy leader te bokk ci Yewwi Askan Wi waaye fàttali ko askan wi su dee jar na ko sax ndax dafa mel ni askan wi daf ñëw jiitu ñun ci li nga xam ne mooy mbébét ak projet yeewi askan wi waaye damay fàttali damay joxe benn màndarga liste yi ñu fi annulé bëri na te du ay list benn dëkk du list benn département waaye list national lépp ñu boole ko annulé ko ne sa parrainage matul pourtant coow li tollul nii de ñu ne benn list yeewi askan wi sur 53 xaw wala 54 boo ci boole liste national donte list bu am solo la ndax mooy listu ndakaaru waaye dañu ne benn listu yeewu askan wi la Macky bu bëgg a naxasaayal coow li ne gàññ gàññ gàññ loolu day firnde benn mbir mooy fi yeewu askan wi tollu réew mi yaakaar bi askan wi am ci yeewi askan wi yaakaar googu nag ku woote boppam leader te nekk ci Yewwi Askan waroo ko fàtte parce que dafa mel ni bu boobaa xamoo lan moo ñu tax a jóg dama koy wax ci sama bopp wax ko ci képp kuy leader Yewwi Askan wi ndax yenn Yewwi Askan dafa am fu mu jaar ba judd ba taxaw ba nekk fii kon képp kuy leader ci Yewwi Askan wi ak lu la mën a naqari dafa am fu muy toll su dee fàtte nga askan wi su dee fàtte nga askan wi xa xamat xamawal lan moo la indi woon ceewi askan wi parce que wax naa ko ñaata liste lañ fi andi leen ñoo xam ne dañu leen ne du ngeen participer du tout ci élection bi ñun dañu ne ci benn département ngeen dul participer waaye semaine ngi nii réew mi dafa taxaw ngir loolu gëm naa ni bu doon bennoo bokk yaakaar la coow lii du tollu nii kon loolu firnde la ñun askan wi dese lu ñu dara te am na lu muy xaar ci ñun mooy ñu mën a fàtte suñu bopp tuuti waaye man la rek man la nañ ma fal su dul man réew mi defe naa boykat bi loolu la waxoon loolu dafa rafetul nañu waxante dëgg su ma defee précision boobu nag dinaa wax ni saal bii lañu daje gën saa gudd def naa war na def quinze jours ci gannaaw ñu réunion ñu ne léegi dañu war a tabb bi ñu waxtaanee Cheikh Tidiane waay wax fàttali na ko léegi dañu ne woon nañu fexe ba soixante dix pour cent des leaders nañu dem ci département yi parce que élection bi ci département yi la du ci liste nationale li gën a yomb ci élection. jërëjëf sëñ Cheikh Tidiane ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa presse bi fi teew di leen ma masawu ndax eh, buñ leen di yëgal waxtaan bi ak léegi defe naa gën saa gudd ñetti waxtu wala ñeenti waxtu la dem. Eh, di am mbégte di nuyu ici ñiy seetaan ñëpp en direct. moo xam ci télévision ci rajo wala ci internet bi di am mbégte nekk fi tey ak eh, Cheikh Ahmed Tidiane Youm nga xam ne mooy coordonné le PUR di wax ci suñu tur nag ci suñu tur ndax ñoo jël suñu responsabilité pour ñëw jàkkaarlook askan wi waxtaan ak ñoom kenn yebaluñu fi xam ngeen bi mbir mi commencé ba léegi defe naa déggu leen ñu si ndax dañu nekkoon ci yeneen waaye dañu jàpp ni wax ju ne dañ koy wax ci jamonoom ndax Sénégal actualité day am rek ku nekk ku xam ak ku xamul ku nekk daal di créer sa propre vérité bu dee nag da nga dugg ci cacophonie boobu rek boo moytul sa